jërëjëf Anna Thiaw gan gi mooy Mamadou Lamine Diante ni nga ko waxee président mouvement pour une citoyenneté engagé bokk itam ci coalition Yewwi Askan Wi ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci wuy si bi maa lay fay euh, sonn Fatou Thiam Ngom di nuyu say auditeur ak auditrice di euh, la gërëm ci invitation bi di mhm. rafetlu également sax ak yow waxtaan ci fajar bi. jërëjëf ñun ñi ñoo lay gërëm ci euh, ñëw bi ndax euh, taw bi ak suba teel gi yombut waaye wuy si nga sunu woote ñu tàmbali ak xibaar bi ñu xëy fësal yenn yéenekaay yi ne Ousmane ko moom fi mu leer na ne bokkatul ci liste électorale yi ndax notification bi yóbbu nañu ko ca sous préfecture bu Dakar Plateau gannaaw bu huissier bi wëree ba sonn amul kenn koo xam ni mën na ko. ko nangul boobale notification euh, muy Ousmane Sonko wala ku ko mën a jël ci turam ndax loola tekkiwul ne moom fi mu ne way wi daanu na ci mbiram Sonko. oui bu dee loolu dégg la je pense que jaay doole la comme nañ ko yàggee def ak Ousmane Sonko parce que euh, tey jii li war a tax ñu mën a génne Ousmane Sonko ci liste yi moom mooy décision de justice. Mm. décision de justice bi nga xam ne dafa fekk dafa tukkee ci euh, conseil cour suprême. mais xam nañ ne euh, tey ji amul benn dogal bu jógee ci cour suprême boo xam ne euh, dafa concerne Ousmane Sonko donc ñoom bu ñu jógee ne dañ koy génnee ci liste yi évidemment jaay doole la parce que bu dee ni ñu waxee jugement buñ ko defal ak euh, digganteem ak Adji Sarr jugement boobu nee nañu contumace la maanaam dafa daw alors que dafa waroon teew ci tribunal bi hmm. keroog bu ñu jël dogal boobu ñoo ngi ko doon tëj ci biir këram daal di ko barricade foofu euh, ñu jël dogal ne dafa daw gisuñu ko donc dañ koy juger par contumace yoon nee na ko atte noonu euh, bés boo ko jàppee dafay mel ni euh, jugement boobu dafay nax saay donc quelle que soit nag raison bu tax nga arrêté ko te xam mm-hmm. nañ ci diggante bi arrêté nañ Ousmane Sonko donc dañ ko war a attewaat te xam nañ ne buñ ko attee te ay avocat teew évidemment Euh, délit boobu ñuy wax ni corruption de la jeunesse donc dafay naax saay bu ko defee moom acquittement donc moo tax euh, euh, parquet bi ne loolu gisewul ak contumace bi alors que ñëpp ñi nga xam ne da nga jàng droit nee nañu. contumax nit ki ci boppam moom mooy contumax mais du dossier boo xam ne ci nga ko ci ko àttee. Mm-hmm. mais évidemment man dama jàpp ne ba léegi loolu ay manipulation la pour yàq xelu nit ñi. parce que bu dee dañuy rajo Ousmane Sonko ci liste yi je crois que loolu jotuma ko woon wax ci euh, ci kàllaama nasaraan. Mhm. Ousmane Sonko Ziguinchor lay woote donc euh, Ziguinchor lay lay wote euh, bu dee dañ ko rajee ci liste électorale yi je ne pense pas que sous préfecture de Dakar lañ koy yóbbu donc normalement Ziguinchor lañ koy yóbbu xam nañ ne même buñ ko gisul moom mooy maire Ziguinchor woon nañ ko mën a yóbbu maire yi Ziguinchor. mais Dakar la dëkk. oui Dakar la dëkk mais. tey Dakar la ne daanaka. waaw mais man mii Dakar laa nekk mais Kolda lay wote. Hmm. <laughs> Kolda laa inscrire. mais jot ci notification bi est-ce que du loolu mooy li am solo. oui oui mais xam nga xam nga loolu yëpp euh, man dama jàpp ne ay ay manipulation la parce que euh, Ousmane Sonko xam nañ ne mu ngi kaso. donc huissier boobu mënul naan dafa daw pendant cinquante jours mënul gis Ousmane Sonko xam na ne son Sonko mu ngi kaso Sénégal gépp xam na ni ne son Sonko mu ngi. Euh, hôpital son hôpital principal. donc euh, xam nañu këram donc dinañu ko yóbbu mairie je crois loolu yëpp euh, ay manipulation la mais daal li ci kanam raw lu gët. est-ce que tamit euh, lii euh, am bu fekkee bien noonu la demee euh, tekkiwul ne tam yi ak ñëpp ñi xeexal Ousmane Sonko dañoo néew doole ci kanam état ndax ba léegi nii li ñu tëral moom mi ngi wéy di dox. waaw mais xam nga xam nga état dafa doole état dafa jéggi dayoo doole état dafa jéggi dayoo. Mm-hmm. moo tax. dañuy wax ne chaque fois que l' état trop puissant loolu moo tax nit ñi di xeex pour am euh, ay ak ak yoo xam ne dañ koy jégleel askan wi te ñaan état également ak képp koo xam ne da ngay incarner état nga sàmmonteeg loolu pour que nit ñi mën a nekk ci euh, démocratie loolu mooy acquis démocratique yi mm. mais nag euh, boo nekkee ak régime boo xam ne dafa changer doctrine yaakaar ne benn arme politique moo am moom mooy jàpp nit ñi tëj leen kaso képp koo xam ne àndul ak yow nga jàpp ko teg tëj ko kaso parce que loolu la gis ci fukki at ak ñaar yu weesu ni donc euh, dafay gën a jafe de sorte que diggante euh, jëfin boobu ak dictature daanaka du am benn différence donc euh, loolu la ñu nekk ba tax na Yewwi li mu mën parce que dafay sàmmonteeg yoon. Hmm. mu mën yëpp def na ko. Euh, euh, organisation société civile également lépp loo xam ne mën nañ ko def nañ ko moo xam fii ci biir réew mi la walla ci ci bitim réew euh, évidemment bu dee da nga jàkkaarloo koo xam ne moom yoonam newul ci sàmmonte sàmm loo xam ne yoon may na ko askan wi évidemment dafay gën a compliqué mais dans tous les cas ñun dañuy continuer di def lu ñuy def moo xam fii ci biir réew mi la walla ci bitim réew pour que véritablement Sénégal mën a nekk ci réew ci démocratie ak état de droit parce que en réalité Macky bu muy ñëw ci réew mi euh, dafa fekk Sénégal boo xam ne démocratie saxoon na fii état de droit mu ngi fi woon donc il faudrait pas que balaa muy jóge fii loolu euh, mu salfaañi ko. boobu xeex Yewwi Askan Wi naka la ci taxawee ak lan ngeen ci dëkkmal peut-être comme plan de lutte. oui xam nga xam nga Yewwi euh, ba léegi ñoo ngi wéyal suñuy activité bu ci mujj moom mooy alxamis bi passé daje nañu ak euh, euh, conseiller politique bu ambassade États-Unis ak bu ambassade Grande-Bretagne ak bu ambassade euh, Canada gannaaw bu ñu defee bindee bataaxal pour mën a daje dajeek ambassadeurs yi ci seen bopp. Hmm. ñoom nee nañu comme waxtaanu politique la ñuy waxtaanee. Hmm. ñi ci gën a jekk moom mooy seen seen conseil politique yi donc ñu daal di waxtaan ak ñoom. xamal leen situation bi nga xam ne moom la Sénégal di dundee et que véritablement Macky lépp lu muy def tey jii jëme ko ci Ousmane Sonko ak euh, lu ëpp junni euh, doomi aadama yi nga xam ne daf leen tëj kaso ci euh, wàllu politique du dara lu dul écarté ko ci course course à la présidentielle. Hmm. ba tax nañu jàpp ne xëy na waxtaan boobu moom moo tax bi Macky Sall demee ONU. Euh, ambassadeur États-Unis bi nga xam ne moo nekk ONU daal di ko interpeller pour euh, xamal ko ni élection yi ñuy dëgmal nii il faudrait que mu aménager benn espace inclusif maanaam ñëpp war cee bokk. Mm-hmm. ñëpp ñi nga xam ne war nañu bokk foofu ñu bokk ci. ba tax na donc euh, ñu jàpp ne xeex boobu dañ koy dañ koy wéyal dañ koy wéyal mi d'ailleurs ci waxtaan boobu lam na leen loo xam ne jàpp nañ ko affaire man frappé na ma particulièrement parce que ñun mm-hmm. bi ñu waxtaanee ba pare benn laaj re la ñu laaj mooy ce que yéen jàpp ngeen ne. élection dina am le vingt cinq février deux mille vingt quatre. Hmm. bon xam nga diplomate yi def euh, en général seen wax du bëri mais euh, man dama jàpp ne question boobu du question yi jot xam na fu ñu ko fu mu fu ñu ko fu ñu ko teg. moo tax ñu laaj ñu ko mais de toute loolu bu jotee également diggante Macky Sall la ak askan wi. Hmm. est-ce que yow gis nga gannaaw laaj boobu loo xam ni wane na ni peut-être Sénégal euh, boo mayiwul élection du fi am 2024. oui mais xam nga d'abord da ngay xool processus bi Macky Sall xamoon na ne amul droit troisième mandat. Hmm. lan moo tax mu yaakaar ne il faudrait que mu def déclaration solennelle pour xamal askan wi ne moom du def troisième mandat parce que bu dee loolu kese la jaruloon euh, jaruloon def def déclaration solennelle. Hmm. comme bu dee 3 avril la wala. wala fin d'année la nga def déclaration pour ne man du ma nekk candidat te loolu diggante boobu ak élection yi six mois wala six mois et demi la. Hmm. ñu jàpp ne donc euh, xëy na du woon mbëbëtam bañ a bokk ci élection yi. ñaareel bi mooy bi mu waxee loolu njabootam maanaam APR ak benn Bokk Yaakaar ñu ne ko Euh, mu ne leen léegi seet seet leen seen biir kan moo mën a nekk candidat ñu ne ko yow yaa ñuy tàndal candidat donc c'est-à-dire ci biir APR également. ci biir mm. benn bokk yaakaar kenn parewuloon pour mun a nekk candidat donc nga ñëw xaar ba mu des juróomi weer nga désigner sa candidat ci koo xam ne bokkul ak ñi euh, ñi gën a fës ci wàllu politique ci biir Sénégal donc en réalité xam nañ ne bu élection amee euh, candidat boo xam ne moom la choisir boo demee bu deuxième tour amee sax du jàll deuxième tour donc euh, loolu yëpp mun na tax ak beneen menace boo xam ne defoon na ko ci discours am nee na bu demee bi gis ne réew mi euh, jafe-jafe yi toll na foo xam ne réew mi c'est devenu ingouvernable évidemment moom dina continuer des ci biir euh, ci bopp réew mi ñu jàpp ne donc loolu yëpp ay ay argument la mm. ay kii yoo xam ne donc mën nañ jàpp ne parewul pour organiser élection 2024 te dafa bëgg continuer nekk président de la république ba jëmmi jamono de sorte que loolu aussi bu amee digganteem la ak askanu Sénégal. kon Yewwi day croiser loxo di xool Macky Sall ak askan wi wala am na taxawaay boo xam ne moom leer na ne di ngeen ko ci am. oui mais c'est-à-dire que xam nga xam nga ñun suñu xeex comme ni ma ko waxee dañ koy teg toujours ci yoon parce que en réalité li mu bëgg tey mooy mooy que ni ñu indi fi ay yëngu-yëngu yoo xam ne dafay indi ay jafe-jafe euh, comme ni ñu ko tàmmee def. depuis deux mille vingt et un mm-hmm. parce que daanaka ci manifestation yi lu ëpp euh, juróom Euh, bakkan rot nañ fi donc euh, bu manifestation amaatee ñu dalaat ci kaw askan wi rëcc ci ay ñu bëri après naan que le pays est devenu ingouvernable comme déjà ñu ngi wax ay forces occultes ak ak terroristes ak affaire yooyu di ko wax alors que amuñ ci benn firnde indiwuñu ci benn firnde ñoo ñu bëgg également nit ñi jóg pour def euh, manifestation yooyu après ñu continuer pour Macky Sall mën a continuer ci bopp réew mi mais ñun duñ ko may loolu moo tax nag lépp loo xam ne mën nañ ko def ci ay activités ci biir hmm. Sénégal wala rencontrer ay institutions internationales comme ni ñu mujjee def nii parce que déjà hmm. euh, waroon nañu tase également ak union union européenne euh, mais on ne sait pas on n'a pas rencontré l'union européenne parce que dañoo gis ne ñoom euh, lu ñuy tuddee immixtion euh, dans les affaires intérieures du pays moom moo tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu choisir ne duñ fa def parce que en réalité ñun dañoo bindoon Union européenne ñu ne laaj ñu ñan ak ñan ñooy ñëw ci rencontre bi. Hmm. ñu daal di dresser ñuy liste. ñu ne bu dee Birame Souleye daf ciy bokk. Hmm. Birame Souleye Diop daf ci bokk. te mu bokk bokk benn parti boo xam ne dañ ko dissoudre nañ ko changé ñu ne leen nag ñun bu ñuy ñëw ci seen rencontre du yéen a ñuy choisir kan ak kan mooy ñëw benn ñaareel bi bu dee Pastef dañ ko dissoudre c'est question interne au Sénégal yéen ñi nga xam ne ay ambassadeur kese ngeen waru leen mën a choisir loolu hmm. donc ba tax na ñun ci suñu wàllu bopp ñu choisir Euh, annulé rencontre boobu. mais euh, bindal lañ leen bataaxal pour xamal leen li taxoon ñu ñu bëggoon rencontre leen donc loolu également je crois que sur le plan international euh, ça a eu dernier accueil bu nga xam ne sénégalais def nañ ko euh, Macky Sall aux États-Unis ça montre en réalité que on est en de se battre pour que ñu war a xam ne image boo xam ne Macky Sall daf leen koy jaay en dehors du Sénégal. ak Macky Sall bi nga xam ne noonu lay doxalee Sénégal ñaari image yu wuute lañu. il mm-hmm. faudrait que c'est également euh, bitim réew ak euh, adduna bi xam kan mooy Macky Sall réellement. Mm. yaa ngi wax sànq ci Benno Yaakaar euh, xaw nañoo tasaaroo ndax gaa yaa ngi fële fu nekk di bëgg doon candidat mais dafa mel ni tasaaroo googu itam moom la ñu nemmeeku si Yewwi parce que ku nekk dafay dem même si contexte yi du benn mais est-ce que dem ci élection ci anam boobu nekkul risque bu ngeen tasaaroowee est-ce que mënul wàññi seen doole. non xam nga li xew benn Bokk Yaakaar mënoo ko comparer ak li xew euh, Yewwi Askan Wi. parce que Yewwi Askan Wi ci candidature yu mm. ñun dañoo jàpp ne. élection boo fay dem euh, premier tour bi dañuy fal ku nekk bépp sénégalais da ngay ñëw. choisir candidat boo xam ne moo la neex nga wote woteel ko léegi nag bu demee deuxième tour nag dañuy éliminer day naan man diw moom bi diw laa préféré ñu éliminer ko donc loolu également Macky Sall xam na ko moo tax bi mu indee Euh, loi sur le parrainage mu fexe ba 2019 mu am quatre candidats yu jàkkaarloo ak moom pour que ñu bañ a dem deuxième tour mais bu candidat yi bëree ñun dañoo jàpp ne deuxième tour fa àla kulli alin foog mu foog mu am euh, bu dee Macky Sall Macky Sall euh, choisirul pour écarte ñeneen ñi par le par le filtre du parrainage mais ñooñu bu ñu demee moo xam président Déthié la moo xam président Malick Gakou la moo xam président Ousmane Sonko la moo xam présidente Aïda Mbodj la c'est sûr que ils vont disperser les voix daanaka de sorte que dinañ mën a dem deuxième tour et peut-être sax que ci deuxième tour bi euh, candidat benn Bokk Yaakaar bi du jàll parce que comme ni nga ko waxee li xew déjà Benno Bokk Yaakaar dañ jàpp ne euh, tout est réuni pour que le candidat de Benno Bokk Yaakaar ne passe pas au second tour. loolu da ngeen ci bekk tasaaro bi am ci Benno. oui mais loolu ñoom ñoo ko sooxee parce que en réalité euh, comme ni ma waxee mënoo toog ba mu des cinq mois nga choisir sa candidat loolu premier problème la deuxième problème nga choisir ci koo xam ne. Euh, ci biir réew mi nit ñi xamuñu ko parce que en réalité il n'a pas d'ancrage même fu mu dëkk sax amu fa ancrage euh, nit ñi nga xam ne également newoon nañu ñoom candidat à la candidature lañu nga écarté leen ñu yaakaar ne ñoom légitimement dañoo war a war a mën a bokk ci élection yi nga nekk fii def ay manœuvre pour mën a leen dajale ñu jàpp ne donc euh, waxtu wi mayu leen ko pour que ñu mën a egg foofu de toutes les façons c' est un mauvais moom ci boppam xam na ne c' est un mauvais choix donc euh, comme ni ñu ko waxee ñoom ñoo ko sombi nañ ko naan. <laughs> alors euh, Yewwi bëri na ay candidats déclarés déggaguñu sa bos donc jàpp nañu ne doo candidat mais am na mouvement boo jiitee foo féete ci élection yi njëm man de yàgg naa waxtaan ak Ousmane Sonko ne ko man sama mouvement fas yéene na pour jàppale ko. ci élection présidentielle 2024 te boobu ba léegi ci lañ nekk. Hmm. Euh, parce que en réalité euh, waxuma sax euh, injustice boo xam ne subir na ko depuis biñ ko rajee fonction publique mu dugg ci politique lépp loo xam ne def na ko pour wane ne moom. dafa am ambition pour le Sénégal ñu koy jéem a gàllankoor di ko teg ay fitna waxuma sax loolu mais tey jii ñëpp jàpp nañ ne projet bu mu indil Sénégal présenté ko Sénégalais yi te Sénégalais ànd ceeg moom loolu moo mën a génnee Sénégal ci guuta bu mu nekk te également euh, ñoom ci seen wàllu bopp boo gisee ñu koy teg fitna yëpp tëj ko kasoo euh, injustement parce que xam nañ ne moom donc moo mën a gagner élection yi présidentielle au premier tour mm. donc euh, ñoo ngi continuer di soutenir candidature président Ousmane Sonko mais nekkatul ci liste yi partem tas nañu ko euh, yëf fi jaxasoo lool est-ce que du compliqué est-ce que jotul tam peut-être ngeen xalaat beneen plan yéen ñuy jàppale ko booy xam nga tas tas parti politique 63 euh, lañ ko mujjee dégg Sénégal malheureusement en mille 2023 déggaat nañ ko 60 ans après euh, mais radié ko sur liste électorale yi ñoom ñoo ko wax comme wax naa comme ni ma ko waxee sànq man goo ma ne am na mais évidemment euh, ñoom dañ koy wax pour géem a manipuler. Mm-hmm. mais man euh, encore une fois euh, xaw plan B xaw ma plan C xaw ma plan Z man plan benn plan laa am mooy plan Ousmane Sonko man Ousmane sonk lay jàppale donc Ousmane sonk la wala Ousmane sonk kon Ousmane Sonko rek lay doon. ak lu mën a xew. lu ngeen dégg ci moom wér gu yaramam ak ñoom seen. waaw Ousmane Sonko fi mu nekk euh, mu ngi ci jàmm. parce que am na koo xam ne mooy dox suma diggante ak moom ak ñeneen ñi nga xam ne également donc euh, moom da koy gis. kon ba tey mënu leen koo seeti. non non non parce que dafa nekk euh, dafa am euh, wérgu yaramam dafa xaw a sutante ba léegi mais quand même ya ñoo ngi mu ngi sant yàlla mu ngi tane chaque jour muy gën a tane. te loolu également ñu jàpp ne lu lu baax la li ñuy ñaan rek yal na yàlla xeeb dolli. bu ko defee mbébét bu mu am ci Sénégal mu mun koo mottali. Euh, mu mun a moo xam day nekk ci biir prison bi wala dafay génn prison mais dans tous les cas dafay bokk ci élection présidentielle incha allah parce que bu ñu tasee partiem également bu ñu amee ñaar récépissé mun nañu créer suñu coalition porter sa candidature te ci lañ nekk te incha allah moo xam mu nekk prison wala mu génn bu génnee ci lay ci lay dàq parce que moom ci boppam dina defal. boppam campagne électorale bu def bu desee également kaso parce que dañ koy continuer di ko jaay doole sénégalais yi dinañu woon ne dañ koy jëlee kaso dugal ko dugal ko pale incha allah en 2024 ma wax li nga waxoon sànq li ci kanam raw liggéet waaw incha allah mais ñun <laughs> dañoo jàpp ne euh, tey jii lépp loo xam ne nguur gaa ngi koy def. Mm. dañoo dañoo bëgg a simplement décourager sénégalais yi képp koo xam ne da nga amoon yaakaar ci Ousmane Sonko pour nga jàpp ne tey jii Euh, comme Macky Sall demul Ousmane Sonko également du dem donc mm. ñaan sénégalais simplement ñu jàpp fu ñu jàppoon démb ak barki démb xam ne son Sonko dara mënul gàllankoor candidature am euh, conseil constitutionnel euh, mënul sukkandiku len ci leneen lu dul décision de justice te tey jii amul benn décision de justice bu tere son Sonko nekk candidat donc incha allah on va porter sa candidature te. nañu focus bu ko defee ñu def ko président de la république du Sénégal. jërëjëf cinquième président. jërëjëf Mamadou Lamine Dianté 2024 yàggatul ay weer doo nga si des. Euh, ñu yónni yàgg moom mi bawul dara ñu ngi lay gërëm ci wuy si bi euh, ma fàttali ni yow yaa jiite mouvement pour une citoyenneté engagée bokk itam ci yeewu askan wi nga xamal ñu itam ne Ousmane Sonko ngay jàppal tànk ci élection bi ñu dëgmal jërëjëf Mamadou Lamine Dianté amoon nañu mbégte lool dalal la. maa